parce que neurotransmetteur la ah. non waxoon naa la ko waxoon naa ne la maanaam neurotransmetteur système nerveux bi neurones yiy jàllale xibaar yi mm-hmm. da cee baax bu ko defee bu xibaar yi di jàll nga nekk ok doo fàtte. non da ngay gën a da ngay gën a ah, da ngay gën a da ngay gën a yeewu da ngay gën a <laughs> wax ñu ngi woon ci lii lii itam dafa mel ni dégg naa li fi dajaloo ci ay vitamine bare na de ci diggante lu xonq li ak der bi. waa vitamines yi ci nekk dafa bari. dama lay der wi ñam bi ñam bi soo ko boolee car wi lool nak fo nga jël ñam bi euh, nga def ko jus nga boole quatre car wi nga def ko infusion ak façon yuñ koy défé parce que xal composition pour liggéey ko dafa jafe loolu dama koy wax mais dafa am ben ay ay ay vitamines yu ci nekk vitamine C. ba paré mom boko ko da fay faj jabet nga jël char ki jël. char wi kii bi xam moom moom day law. char woowu yow xam nga xam nga char wi. Ah, waaw car woowu. bo jëlé fexé def kii jus def ko infusion jël li def ko jus boole leen. dara gën ko si les diabétiques. parce que dafa am parce que parce que lycopène bi ma la wax hypocholestérolémie la manam xeetu cholestérol yi nekk ci yaram bi tay bon daf koy wàcce bu gaaw. dafa am tam lu ñu naan leucine loo xam ne dafa baax ci glycémie c'est-à-dire su fekkee ni dafay dimbali stimuler pancréas bi ba mu gën a mën a liggéey ay insuline insuline yooyu dafay permettre dafay dafay dafay wàcce taux sucre ci deretu nit ki kon ci tënk da ngay gis ni carrément ñam bi soros su am

am na aussi citrulline citrulline bi ma la wax ne la bu duggee ci yaram daf koy convertir en acide arginine acide arginine boobu waxoon naa la fi ca benn garab bu doon waxtaane ne la dafay tax dafay dilater vaisseau sanguin parce que oxyde nitrique bi ci nekk ba pare tocopherol bi ci nekk nga xam ni mooy vitamine E nga xam ni vitamine E dafa am juróom-ñetti xeetu vitamine ah am na bêta gama delta dafa bëri tocopherol vitamine E mooy anti stérilité loolu ñëpp xam nañ ko munoo faj nit wàllu ñàkk am doom te doo ci def ay vitamine E reen bi dafa riche en vitamine E reenu xaal ak ak citrulline léegi reenu xaal boobu su fekkee ni nit ki moo ngi koy jëfandikoo bien sûr laaj na ak yeneen xeeti composition ba mu nekk H nangam <coughs> soo ko boolee te ko feral bi ci nekk dafay tax nit ki mën a am doom ci jigéen ak ci góor parce que dafay stimuler ovaires yi ci jamono surtout su jigéen ko soo gisee fóot rek naan ko moom reen bi gis nga fóot rek naan nga reenu xaal mm-hmm. dafay stimuler ovaires yi ci ñu mën a génne ay ovules yu doy nga xam ni bu tolloo ci période par exemple jigéen ji daa gis fóot tey léegi rek mu naan ko di ko naan di ko naan ba mbaaxam jeex ndax nag li ci gën soo koy naan nga naan ko ci waxtu wi ngay gis fóot soo gisee foot ba pare jarul naan parce que am na yeneen danger su ne yow ma ciy ñëw parce que nit ki bu xasee jël ëmb su ma bëggoon naan reenu xaal dama naan ko bul ko naan ndax la la ca topp ak la ca nekk mais bu fekkee nag jël na ko ci moment règle am daf koy yóbbu ci ovaires yi mën a stimuler bu baax mu mën a am ovulation bu baax ci bu tollee fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett lu ñu naan période d'ovulation nga xam ni bu sëyee jëkkëram dafa mel ni ay yamb yu bari walax njaar yi danañ am saas sëy sa ak benn ba doom mën a am kon da cee baax ci loolu moom reen bi mhm. torop ci wàllu kii muy tocopherol bi mais acide arginine bi ak acide aspartique am na ko acide aspartique mon ngi ci ren bi maa ci ren <coughs> parce que acide aspartique bi waxon na la mom da fay stimuler dafay euh testostérone yi muy hormone stéroïdienne parce que góor dafa am lo xamni moy produire ay spermatozoïdes acide aspartique bi fay tax wallax njaani gën mat gën doy gën sakkan gën bari. comment nan lañ ko utiliser. waa ren bi infusion toujours ren bi waaye teewul non li sëñ bi garab demal ci garabu tubaab bu la neex à base de nangam la may dem d' autres man boo ñëwoon tey am na garab yi ma tuddee as 07 as 12 as 44 as 28 yooyu nit ñi dañ koy xam am na ñoo xam dañuy ñëw ne ne sëriñ bi as 44 nga ma joxoon moo tax ma am doom.

ci nekkin mu sell ci waat am doom wul euh, yeneen ak yeneen yi muy jox nit ci wàllu yëg-yëg surtout ci mhm. wàllu ci mhm. wàllu ci wàllu sëy mhm. kon kon ren bi mun na mun na mun na participer ci loolu waaw ndax wax naa la ne la benn vitamine E bi ci nekk tocopherol bi beta gamma delta yooyu nga xam ne daf koy yóbbu ci nit ki muy góor muy jigéen mu mën am doom mais acide aspartique bi moom ci góor rek la baax ndax dafay matal ay wallax njaanam ba wallax njaani bu fekkoon dafa am lu tubaab naan oligoasténosperme maanaam nga xam ni wallax njaani du ñu sawar wala du ñu bari bu boobaa acide aspartique bi su fekkee ni nit ki ci bopp bi ci hypothalamus bi moo mënta def commande bu doy ba wallax njaani génn da koy régler su fekkee ni dérèglement bi dafa nekk rek ci nga baal ma ci ñaari waa yàlla yi bu boobaa itam acide aspartique bi dafay stimuler euh, Euh, dafay hormone stéroïdienne yooyu ba mu mën a génne wallax njaan mu doy bu mat kon reenu xaal moom am na yeneen ah mais li mu gën a mën mooy li jëm dëgg-dëgg ci ku góor ci ku jigéen ci wàllu am doom ndax vitamine E bi ci nekk ndax acide aspartique bi ci nekk. sëñ bi lii itam defe naa am na njëriñ de. muy doom bi muy kemb bi ne ci biir xaal bi ci boppam. dara gënu ko biiru tàññ boo koy yëy ah waaw. dara gënu ko ci biiru tañ mais dafa am fibre alimentaire waaw gis nga sëriñ bi ku am hémorroïde di yeeyi doom bi da nga wér boo amee hémorroïde boo amee problème constipation wala sa biir nit ñi am lu ñu naan colopathie fonctionnelle mooy biir boo xam ni dafa yam ngelaw di jooy colopathie ah feebaru colon bi lépp ci biir fibre alimentaire bi ci nekk dara gënu ko ci. waaw ba pare dafa am yeneen xeetu vitamine yoo xamante itam ñoo ngi ci muy vitamine b